fukki fan ak juróom ñetti ci weeru safar di bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul wooye jullit yépp ngir ñu sant la ko boromam commission sociale bu tuba ca kanam ci njiital Serigne Murtada moom Serigne Abdoul Fattah ne a ah, ñun kat nañu waaj màggal gi waajalee ko nañu ko defee woon daaw taxaw bokk yi nga xam ne danoo yittewoo ku leen taxaw rawatina daara daaw juróomi téeméeri basang yu mag yi ñuy lem ñetti yoon commission sociale fàggu na ko ren bëgg na lim bu ëpp lu toll noonu mbokk yi ngir gën a taxaw dong yi daara yi danañ ci boole it ay moustiquaire Serigne yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ko lim bu takku la joxe ci bagage yi daaw naka jekk nag waxtu wu nekk mbokk yi bàyyi defal yàlla yi ana ngeen solidarité dëgmal nañ bésu sant bésu mbégte commission sociale ne fu waay nekk war naa yëg ne bésu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul yegg si na taxawu daara yi du ci yem de taxawu ñu tawat moo xam scanner moo xam analyse moo xam te jaaxle lool commission sociale ne nañ leen taxawu ba ñu mën a màggal ci jàmm ak salaam mbokk yi waaye yemuñu ca de commission sociale dina def consultation consultation gratuite danañ jël ñaari téeméeri soxna xool ci seen yaram cancer du col de l'utérus mu ngi ci am déet te doo ci fay dara mbokk yi waaye yemuñu ci de danañu jël lu toll ci téeméeri xale dugal leen néegu góor commission sociale bu Touba kanam demoon na daaw seeti ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw te ñu bokk ci yëf yi nag prison bu Mbàkke yóbbu na fa lim ci dund ak i jumtukaay dem na prison bu Njaareem yóbbu fa lim ci dund ak i jumtukaay mbokk yi ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne bu bét sebbee ñu jaaxle lool amuñu néeg bu ñu fanaan ay sànke ki saaku la ñuy wërale ca la ñuy fanaan ak seeni njaboot mbokk yi am na ñoo xam ne toilette mooy seen problème amuñu ko ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne fosse mooy seen problème amuñu ko daaw commission sociale ubbi na ay wàññ ci lenn ci sancaan yi ren mu fas yéene ubbi ñeenti wàññ ci ñeenti xibla yi ngir lan ñi daan gàddu seen siwo di dugg si ci dëkk bi ñu gàttandoo leen foofu ak xewulu Serigne Touba Cheikh ba Bamba Khadimu Rasul mbokk yi yitte kese la lii lépp boo ko xaymaa day toll ci 35 millions mbokk yi ay ca murit lu waay mën lu waay am bu kenn bu kenn yéem yéen waa diaspora bi naka jekk kenn mësu leen a mën rawatina nag soxna yi yéen waa mën rawatina soxna yi yéen ndaw ñi yéen jàmbaaru Serigne Touba yi ay ca mburit ñu ànd ak commission sociale bu Touba ca kanam dajale 35 millions mbokk yi ngir lan taxaw ñi nga xam ne dañoo manqué lépp te yittewoo ku leen taxaw mbokk yi kon ay ca mburit commission sociale bu Touba ca kanam mu ngi leen di sant di leen séntu te di leen ñaanal màggalu jàmm a xéwal